suñu mbokku internet yi comme ni koy defee saa su nekk ci Tiva info àndandoo ak yéen ci ambiance bi nga xam ni moom mooy wàccaayu tabaski ndax li ci des daanaka bareetul waaye ci biir loolu gannaaw bu ñu jógee ci suñu mbokku julle yi dañuy daal di doxantu ci boutique alimentation yi xool yi ñi nga xam ne ñooy yëngatu lu jëm ci wàllu pomme terre soble laaj ak yu ni mel poobar bi nga xam ne moom la ñuy toggee xar mi xool lan moo tax prix yéeg loolu wala it lu ko may ñu ni soble dafa manqué ak pomme ci biir loolu waa ji moom mi ngi ñuy xamal ni pomme ak soble daan lii moo waral rek mu daal di cher bagage yi bari nañ fiñ ñu giñ ko ki mi ngi nek ni ñun ñu ko jëlé ba ganjol ganjol stock ya nga fa nek bari bay mënu ñu ko jënd ndax suñu client yu ko jënd sa pombiteer am na waaye par rapport ak prix bi ni doon démé ndax pombiteer bi tamit ni mu daan amé ren dafa xawa am rupture ndax kin ngi ngay gis ni ni pombiteer ba ki dem mu ngi doon jar 8500 8750 tey yaa ngi jëndee pombiteer 13000 13500 ta lolu wër ta mën a nekk ndax engrais bi li mu ci yor stock bi li ci yor dafa bari mais dañoo bàyyi lépp ñu bëgg koo jël teg ko ci loxoom te suuf boo génnee ruddi ñaay bi li ñu bay ci pomme de terre du jeex du xaaj mais dañoo jël lu ci bëri bàyyi ko engrais bi looloo tax prix ñuy seer nii te loolu ñu ngi koy ñaan état bi mu dimbaliñ ci ndax wax dëgg yàlla sonn nañ trop trop trop ndax da ngay gis ku bàyyi bay bëgg a dee sonn ci mais pour nga jaay ko sax day am problème ndax prix yi heure bi ko gaa yi soxla ci booba ci lay manqué muy période lu mel ne période tabaski korité waaw yooyu ci lañuy ci la manca yi gën ëpp lu muy amee ci beneen fànn moom mii nag suñu waajur la yàgg na lool ci li nga xam ne moom mooy euh, njënd mi ak njaay mi gis-gisam moo di pomme de terre ak soble lii moo waral rek mu daal di jafe lool. soble bi bayuñu ko ñun dañ koy jënd rek dañuy dem ci tool yi ñu koy jaay ñi koy jaay ñu jënd indi rek moment bi nag dafa manqué soble mbay bi dafa bariwul loolu moo tax looloo tax waral mu seer lool mais ñun wax dëgg yàlla. Euh, bu ñu sañoon dañuy jaay prix yoo xam ni prix yu yam lay doon comme ci dëkk bi la ñu dëkk ay jullit lañu événement bi wax di yàlla bëgguñu yokk dara waaye nag euh, su waaye nag wax di yàlla fañ koy jëndee moom fa la seere que bu dee pomme de bi kenn nit moo koy jaay ci Sénégal presque muy euh, indien bi nekk mbaan mooy jaay bu bu bërki man démb soble pomme de terre bi ma jaay 19500 laa ko jaayee bi ma dese woon waaye tey bi mu ñëwee 13000 13000 la ñuy jaayee so soble bi pomme terre bi. xam nga kon comme ko ñoom ñoo koy bay soxna si moom ñi ngi ko fekk ci marché bi waaye mi ngi jaaxle loolu xam le ni daan li mu yoroon ci ay koppar yem na ci ay ndugg yu sew sewaan koor nag war na wàññi waat bu baax lu jëm ci wàllu soble ak pomme de terre yii c'est trop c'est trop moom wax dëgg yàlla seer na seer na seer na man de maa ngi nii moo ma taxawoon a jóg soble pomme mais dafa cher trop cher na cher na waaw cher na trop sax moom aj nañ ko trop jarul woon lii moom mhm. ah, Share na torop torop torop share na ii c'est trop kilo 350 wala 250 sax ci mu toll ñi ñong koy yaay 700 ba 800 soble bi 500 mais terre bi mom 800 la jëm mom wa wala 1000 francs dina fa dem wa bala ñuy tabaski ñu mhm. wañi ko rek té xamné li mom wax dëgg yalla jarta ki mom jarta yokku parce que day jeex événement bi day jeex bu jeexee ñu commencé waat wàññi ko kon nag dañoo war a wàññi rek jaayee comme liñ daan jaayee ah ñoom ñoo ko yokk moom parce que liñ leen jaayee fële moom jaayee wuñ ko fii waaw fële la gën a yombee ñu ñëw yokkaat ko ndax événement bi te loolu jaadul c'est pas normal waaw. tey ku ni pombiteer di nga ni poobar ni laaj ak kaan ndax yokku na wala yokkul moom mii nag mi ngi ñuy indil ay leeral ndax yu sew yooyu yokku nañu ko wala wàññeeku na kon suñu. waaw fii it moom tey instant bi may wax yow ci 2019 bii moom Euh, lenn ci yenn ci yomb lépp ci seer seer na trop waaw client yi moom dinañ ñëw moom ndax moom bagage instant bi loo leen ko jaay dinañ ko jënd internet yi lii la leen Tiv Info indiloon ba tey ànd ak yéen ci wàccaayu tabaski ambiance bi nga xam ni mooy am fii ci marché central bu Tivaouane joxaat leen dig daje ci seen beneen ambiance su tabaski ba tey ci seen chaîne bi nga xam ne moom ngeen préféré muy ay Info